sama teewaay fii mooy dama ñëw fii ndaxte liggéeykatu Sen'Eau dañoo sonn ndax entreprise française bu ñuy woowee Suez dama ñëw fii ndax consommateur sénégalais dafa sonn ndax entreprise bu ñuy woowee Suez dama ñëw ndax askanu Sénégal dafa sonn ndax entreprise française bu ñuy woowee Suez li tax ma ñëw fii mooy ndaxte fii ci seen Sen'Eau li fi xew mooy rongañu nit ku ñuul mooy siim cere tubaab te loolu dafa war a jeex ñun li ñu xamoon mooy rongañu baadoole mooy siim cere buur waaye fii li fi am rongañu nit ku ñuul mooy siim cere tubaab lan mooy rongañu liggéeykat ku ñuul mooy siim cere tubaab mooy bi SEN'EAU ñëwee ba léegi bi SUEZ ñëwee ba léegi li fi am mooy liggéeykat yi amuñu dara ci yokkute pire nous assistons à une précarisation des travailleurs de SEN'EAU ndaxte tey la liggéeykat stagiaires yi gën a yokk ñu naan tey stagiaires yi toll nañ jege nañ quatre cent stagiaires ndax lan bugguñu fay sénégalais yi salaire bu mot avantage yu mot indemnité yu yu mot ñu leen di jox le statut de stagiaire loolu du dëkk du yoon ñaareel bi mooy bi seen o ñëwee ak léegi travailleurs yi amuñu seen représentant mënul fekkee réunion conseil d'administration te loolu du dëkk du yoon te loolu li ko waral lenn rek la représentant travailleurs yi bu ñëwee conseil d'administration dina seet seetantal mbir dina poser question dina laajte ay documents loolu la ñuy bañ ndaxte ñoom seen gestion c'est une gestion opaque c'est une gestion antidémocratique c'est une gestion qui n'est pas transparente donc dama ñëw tey pour exiger que le représentant du personnel mën siéger dans les meilleurs délais, sans délai dans le conseil d'administration. ndaxte du dëgg du yoon liggéeykat yi ba tey mënuñu teg seen bët ci contrat d'affermage bi mais on est dans quel pays là nañu génnee contrat d'affermage bi ça ne doit pas être un contrat clandestin contrat d'affermage bi nañ ko teg sur la table nañ ko jox liggéeykat yi mbokk yi lii yëpp nag on avait prévu ça ñu ngi si doon waxtaan ak Elimane Sànk fii le forum social sénégalais FRAPP ak yeneen organisation defoon ay conférence de presse lii am tey bettuñu lu tax bettuñu mooy Suez dafa corrompre état du Sénégal Suez dafa corrompre gouvernement du Sénégal loolu mooy lan mooy Suez dafa corrompre ministre Mansour fay goro ci président de la république moom moo nekkoon ministre de tutelle bi naka nga mu nee nekk arbitre Veolia SDE Sen'Eau xaw ma Suez di xëccoo kan mooy jël ndox bi fii ci Sénégal waaw yow arbitre bi maanaam yow Mansour fay ministre à l'époque nga nekk arbitre bi ngay nangu Suez di la jox ay camion mbalit pour Saint-Louis camion mbalit mooy li ñu gis dama ne camion mbalit mooy lu ñu gis Mansour Faye jot na yeneen ak yeneen yoo xam ne du ko wax loolu moo tax bi Suez ñëwee ëllëg mu dugal xaalis ci ndox bi muy dem di lebi banque ndaxte xaalis boobu da ko jël pour jënd gouvernement du Sénégal pour corrompre ki nga xam ne moom mooy Mansour Faye loolu moo ñu topp ba léegi foog Suez tubaab yi xam ne là-bas c'est Paris waaye ici c'est Dakar duñ fi nangu ñuy nga ñu nit ku ñuul di siim cere tubaab yi duñ ko nangu moo tax nous interpellons le gouvernement du Sénégal nous interpellons le président Macky Sall monsieur le président Macky Sall son excellence monsieur le président Macky Sall balaa ngaa dem doxi médiation entre xawma France ak Mali mais nga dox relation entre Suez ak les travailleurs sénégalais Aïssata Tall Sall nee na day dox médiation entre Mali ak France mais gouvernement du Sénégal lu tax du médiation entre les travailleurs de Sen'Eau les braves travailleurs de Sen'Eau ak Suez voilà ce que nous exigeons démb la ñu recevoir une délégation de Sen'Eau démb ci suba heure bii ñu ngi nekkoon réunion FRAPP ñu defal ñu la situation balaay ñu leen di recevoir j'ai dit à vos camarades de Ziguinchor boobu maa ngi Ziguinchor ne leen fii ci Ziguinchor du ñu bàyyi affaire bi seen waa Dakar bu ñuy tàngal waa Thiès bu ñuy tàngal waa Kaolack bu ñuy tàngal ñun waa Ziguinchor dañoo war a tàngal parce que ñii ils ne comprennent qu'un seul langage le rapport de force nous devons édifier nous devons construire un rapport de force pour exiger la fin de ces injustices dama ñëw fii pour wax ne l'augmentation des 40 pour cent exigée par les travailleurs est juste et légitime et inchallah dinañ ko am Rasoul démb am na li ma la wax démb ci guddi am na li ma wax Ahmed Seck secrétaire général des travailleurs de de Expresso dama leen ne tey ñu ngi fii Sen'Eau démb ñu ngi nekkoon fële Expresso lundi samedi inchallah on va participer à la marche des travailleurs de Sen'Eau. Vendredi, de 10h à 19 De 15h de 15h à 19h, nous serons lu ñuy laaj nag préfet bu Ndakaaru mooy bu manifestation ndaxte manifestation bi jàmm la la manifestation signifierait que le Sénégal est contre Interdire la manifestation signifierait que le gouvernement de Macky Sall est le complice de Suez qui opprime les travailleurs de Sen'Eau li ma wax nag liggéeykatu Expresso ak liggéeykatu Sen'Eau démb ci guddi mooy ginnaaw tey ginnaaw manifestation ajuma pour Sen'Eau nous devons préparer une manifestation de Sen'Eau et de Expresso et de tous les travailleurs qui sont opprimés nous devons préparer une grande manifestation je le dis pas ndax bëgg histoire je le dis parce que dama xam ñi ñu jàkkaar lool ñi ñu jàkkaar lool nombre la ñuy ragal ñi ñu jàkkaar lool ils sont prêts à faire des mois de face à face ak Bengo des mois de face à face ak Expresso il faut la jonction des forces